بما تقول دزيما ملي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم هذه تحفة المتطرفين في التواصل بأسماء المفضلين الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا ندى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ثوي النوال الوالي هذا وإن اليوم ذو توسل له بأسماع ذوي التفضل فقلت يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب واقبل به نثمي هذا يا كريم وابل من به يناجي ما يروم ربي بنوح وبإبراهيم لغفر ذنوبي واكفن الرجيم وكن بموسى وبجاي عيسى واخيني دنيا وأخرى بوسى وبمحمد رسول الله علي خير صلوات الله ثم عليهم ليعب إيمانا قد شعب الإسلام والإحسان بحرمة صديقي والفاروق جدني بالإخلاص وتوفيقي بعاق عثمان حق النورين وبعلي واليد سبتين هب لي في الدنيا يما أخرايا النور والعلو والمشايا بعاق تلوة وبصبير وعاق سعد نجني من دير وبسعيد وابن عوف نجني من كل من كل ما أخاف من فتن وبسعيد وابن عوف نجني من كل ما أخاف من فتن وبأبي عبيدة ما يفيد إلى جنابي واكفئني ما يبيد بحق عبد الله نجل العم أي ولد العباس كثير علمي بحق عبد الله نجل عمرا أنك في دربا ما يجر دررا وبامن مسعود وجاء من السلام خن البلاء ودر عين وكلام يا ربنا بحرمة العباس وأمشة أنك في كل باس بحرمة الحسن والحسين جدني في الدارين بالنورين بحرمة القاسم ثم تاغر سفي سواعين يا مغدمائر بحرمة الطيب إبراهيم هدم لي البشرى وتكريما بجاه فاطمة أفتم نفسي عن كل ما يجرني لعفسي وبرقية وزينب كفني أترد والإجاب كل زمني وأمني دنيا أخرى بالكرم بأم كلثوم وجن من اللخم بعوس من عامر وهرم وعاقم سروق تقبل كلمي وبربيه وبجاه الأسود أبلت غامة وقوي مودي بعامر بن عابد الرحماني وبأبي مسلمة الخولاني جدلي بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة بالعثن البصري يعبلي الورى ولنسلاخ من هوايا والبداه وابي أبي هريرة وابي بلال وابي صعيب ربي جد لي ابن لوال وتاتقبل وسني من داء شرا وجهرا بأبي الدرداء بحرمة المقدار ثم خالدي وبشبير أولي المقاصد وبأمير المؤمنين أمرا قني مكرا وسقا وخررا بحق قائد المجاهدين علي الذي أعان دينا بعق شهد وبعق عروة سني تمسكا بيسقى عروة بحرمة القاسم ثم خارجه سدني خوف المتبى مناهجه وبأبي بكر وعبد الله سدني فضلا ما لو تناهي وبسليمان قني كيد اللغين وكيد خيري وكل يمين بيومنا خديجة الأبل الأمل في العلم والأدب رب والعمل بيومنا عيسة قلني ما يدرني في الأرضين والسماء بيومنا حفظته البيني أبد وبينما يجرد ونكد بيوم آتين بسي ما ظهر مني وما بطن وجلي وسر من مالك وصافي وأبي أنيفة وأحمد لاستجب بجاه جبريل استجب سؤالي وبلغني مبلغ الرجال بجاي ميكائيل أبلي نعما ونفي أجل مثل غيس كرما بجاي إسرائيل أبلي سما ولتكفني أوال يوم القمة بجاي إسرائيل كندي يا جميل تلا يأتي وكذا بدرهم وجعلت رسولي لمن يدعى به سعادة الدارين واغفر لي به وليجت وللذي دعاني لنظمي بالأمن والرضوان وبالسعادة وبالماية عن جملة الأسواء والعناية وبالنجاة من سؤال وعذاب وسكرات الموت رب والحساب وبالبشارات وبسرورهم عند مماتنا وفي النشور وسلم وسلم على النبي وآله مع سعاب النجوب واغفر لوالدي واغفر لجميع أهلي وجملة شعابي يا شمئيم واغفر لكل ذي تعلق بها واقغ سعادتي يا ربي آم والتف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا أسن الختام ربنا آم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 ma jël njabootu bàyyi Sinde Kaw Balla gépp te ñoom ñëpp day suñu borom dogal na mooy seen kilifa nag te ñoom it ñu doonee seen kilifa te ñoom it nag ñu doonee seen kilifa ko ko lool nee nag nangul nañ ko ko nag lool mu neex leen lool mu neex leen lool nag kon ñii mu fekk si tey kon ñii mu fekk si tey ñun nangu dogalu yàlla ñun nangu nag dogalu yàlla la ñu ñàkk ki yàlla lañu moo tax sëriñ bi nee moo tax sëriñ bi dem na fépp waaye dafa wax la. waaye nag dafa wax ni. nañ mujj nag sëñ Sidi Ñang. ndax buñ fa njëkkee. ndax buñ fa njëkkee. dootu mën a dem feneen. loolu la ko waral. nee loolu nag la ko waral. digganteem ak sëñ Sidi Ñang mii toog la. nee loolu nag. yàllay kese moo ko kese nag moo ko lal. ak yonent bi. ak yonent bi. ak Serigne Touba. ak sëñ Modou Fadia Ba mii nga xam ne nag moom la ñu bokk ñoom. bu ñu neexee. nee bu ñu neexee. ne xëy na sëriñ Sidi ci saayir ñi gën a doon gone ci kër gi la bokk waaye nag ne sun borom nag mooy dox na coobareem nag ne moom mii nag ne ma loola neex ko nag lool ne nun ñi ànd ak moom nag ak njaboot gi ci kër ga ak ñi ne ci biir màggal gi mu neex ñëpp nag kon sëriñ Sidi ñang sëriñ bi nee na ñëw na ci bis bi lu ci njëkk nag na nga fas sa na nga nag ci barke sëñ sëñ sëñ Dëkkaaw Balla ak barke sëñ Modou Fadiama na nga ko fasee woon na ko fasee woon ci liggéeyub jumaa ji ba mu àggale ci liggéeyub jumaa ji ba mu ko nga fas ko ci liggéeyub nee na nga la fas ko nag ci liggéeyub barabu sëñ Modou Fadiama bii sa maam ndax ndax dafa am ci yow yaakaar dafa am ci yow yaakaar lool nee nag yàlla bu yàlla tas yaakaaram ji ndax moom du waxantu du defantu te ku mu neex ne ku mu neex nag man ngaa waat ni sëñ Cheikh ñang mi boo ko gisee doo ko gis seen nag muy taxawaalu kër sëñ Touba toolam ya jumaa ji këram xanaa kër rakkam yi ne li tax mu ñëw di seere ne bis gis nag bis rek lay nekk nee sëñ Cheikh Niang sant na mboolem njaboot gi mu bokkal sëñ Modou Fadjama Niang waaye nag sëñ Sidi da koo beral nag cantu boppam nee goo xam ne cant gi am na fu mu tàmbalee waaye nag amul fu mu yem nee loolu nag sa pas-pas moo la ko may yow sëñ Sidi ndax nit ñi nag ñu ngi rawantee ci Pastef nee sa Pastef ci Serigne Touba sa Pastef ci sëñ Modou Fadjama moom nga jooyul ci sëriñ Cheikh ña ngi nii toog ne xoolee woo ko dooy bàyyi da nga koo jàppee kilifa te amoo ci rëy amoo ci bëgg àdduna amoo ci ngistal yàlla rek a tax nga di ko def ak def li la war waaye nag defe ne rëccu ko de nee nu ñii fi ne nee mën na ñi nga bokkal bàyyi. ñun ñëpp ñoo la mag nee ñun ñëpp ñoo la mag waaye nag ñëwoo ci kenn nee loolu nag sëriñ bi da ko seere nag ñëpp dégg ko nee loolu nag sa jëf la kenn ku ne nag ku mer mereel sa jëf sëriñ bi nee na a jëf moo doon boppam li tax mu koy waxee nee li tax mu di ko wax nag nee daa bëgg nag lu baax bu ko defee wala mu jaar ci yoon bu baax woo xam ne dafa jëm kër. woo xam ne dafa jëm kër. bu mbooloom jullit dajee. bu mbooloom jullit di dajee. dana ko biral dana ko biral. ña yàlla dimbale. na ña yàlla dimbale. seen xol rafet. seen xol rafet. ñu nangu ko ñu nangu ko. dëggal ko dëggal ko. am ca pay suñu borom. am ca pay suñu borom. jëriñu ca jëriñu ca. ña yàlla dë ña nga da leen a na ñoo xam ne nag suñu borom da leen a nattu nag. leen neexu leen. ñu mer ca ñu mer ca. yàlla alag leen rek. yàlla buñ ca bokk ci barke. ne yàlla buñ ca bokk ci barke borom Touba yow daal. nee na rafet na rafetal njort te dalal sa xel ndax moom mii ak mboolem ñu bokk sëñ Modou Fadia Mañang ne kenn koy làq nga ngërëmam te bëggoo koo wax waaye moom nag du nëbbu jëf ndax àgg na foo xam ni néewtu kenn soxlaatu dara lu lu jëm ci yàlla kon nag boo jëfee loo xam ñëpp dañ koo bëgg a def te mënuñu ko nga def ko defal ko ñëpp bu ñëpp teewee dina ko seere ba ñëpp xam ko sëñ Sidi Niang yàlla na la yàlla aar yàlla na la yàlla sam yaa xam fa nga bëgg a yaa xam nag fa nga bëgg a yegg yàlla na la fa sëriñ Tuubaa yeggale barkeb sëriñ Modou Fall Diamagnane loo dugg yàlla na sotti loo song yàlla na ko daanu loo koo song yàlla na daanu ci barkeb sëriñ Modou Fall Diamagnane ndax sëñ Cheikh lim ko wax nee mënut a wax lépp moom ndax ban jógee ba léegi fu mu génn li ma waxaat bi ñuy dugg ci kër gi li ma waxaat bi dugg ci kër gi sëñ Sidi mii day aw ma yàkkamti ci mbiram nañ ko topp ba mi jeex nañ ko topp ba mbir mi jeex tag ndax dama bëgg feeñal sama yéene ci kanamu nit ñi ndax nee na daa a feeñal nag yéeneem ci ci kanam nit ñi nag ak ni nga toll nag ci moom yow sëñ ne loolu nag da ko bëggoon da koo bëggoon suñu borom nag dafa ko fi kanam nit ñi ne moo tax xolam dafa sedd ne kon moom wax ji mu gudd mu gàtt waxtaanu pël la rek pël moom waxtaanam mënut a génn nag sëñ siidi sëñ siidi sëñ bi nee na yaa baax ne boom te moom ko ne ko si moom loolu rek la ñuy del si yaa gore yaa baax yaa am pula yaa am jom yaa nangoo yaa ragal yàlla yaa nangoo jaamu yàlla ne loolu yi mu ne su koo gé weesu moom daal mi ngi lay ñaanal àgg suuf ngir yàlla dafa tàng du jóg mukk ti la ñaanal ndax keroog bi la yàlla defee ne keroog bi la yàlla defee lii ci coobareem nga xam ne booba say at bëreegul lool ne say at bëreegul lool booba nga yor sa benn néeg nga yor sa benn néeg sa biir kër baay sa biir kër baay ga ñëpp dem ñëpp dem bàyyi la fa bàyyi la fa ñi yori passeport ñi yori ñëpp yi tukki ñëpp yi tukki dem am xaalis nga ne man yàlla laa siiwóor nga ne rek laa siiwóor ba yàlla dikk na bi nag sëriñ bi lay seereel ta moom a yaag moom yéen a ko doon doxante ne day taalootam dem ca a yi bay nga yow nga génn ci garab yi bind àlluwa rek ne kon nag ne sunu borom mi ngeen doon jëfal dikk kon nag alhamdulilah rabbil alamin bala dem seer yàlla na nga fa yéen taalibe yi itam yéen taalibe yi nag yéen ñi ko jox seen bopp yéen ñi mi seen bopp ngir yàlla te sëñ Tuubaa tax ak jëmmi maam maam jeeg baayam ba na xam ne naxu leen wóoru leen nee na ngeen xam nag ni sëñ si di naxu leen wóoru leen waxu ko de waxu ko de waxi sëñ bii lay wax te sëñ moom du wax lu mu xamul lu ngeen ko mas a jox lu ngeen ko mas jox jëlu ko di ko noose de. jëlu ko di ko noose de. jumaa ji ngeen seen kenn mënu ko ci. jumaa ji ngeen seen sëñ Sidi Dieng mi kenn mënu ko ci. barabu sëñ Modou Fadia Diama bi ñu jëm kenn mënu ko ci. bis yi ñu weesul sëñ Modou Fadia Diama kenn mënu ko ci. bis yi ñu weesul sëñ Modou Fadia Diama kenn mënu ko ci. bis bi ñu nekk kenn mënu ko ci. bis bi ñu nekk kenn mënu ko ci. kon loolu ngeen xam ne. kon loolu ngeen xam ni. sëriñ bi nee na. sëriñ bi nee na. ki ngeen àndal naxu leen. ki ngeen àndal naxu leen. ku doxut ku doxut. yaa jàpput yaa jàpput. waaye moom mi ngi mi ngi dem de. waaye moom mi ngi dox de. moom fi mu jàpp mi ngi dem mi ngi dem geesu gis sa bopp sa ginnaaw ku geesu gis sa bopp sa ginnaaw xoolaatal sa mbir sa nag sa mbir sa diggante ak sëñ Sidi waaye ñoom ñii mu bokk sëñ Modou Fadiama naxante wut ak ñoom te suñ doon naxante te fii di ko jay ne kon du nekk fii di ko jay ndax ne koo fi gis am na dépense am na dépense am na oto bu mu war am na mu war waaye seere sa baaxu mbokk waaye sa baaxu mbokk du yàq sëg baax dara du yàq nag sëg baax dara nee ko bu fi jógee ñu ne sëñ Cheikh waxul limaam ñaam sëñ Cheikh waxul limaam da ko may da ko nax waaye bu yeboon waaye bu yeboon alhamdulilah rabbil alamin waxoon naa ko fi daaw waxoon na ko fi daaw wax ko fi daaw jéeg waxaat ko fi ren te xam ne sëñ bii moom ne kenn delluwu ci ginnaaw moom delluwu ci ginnaaw kon li ñu seere lépp dëgg la àdduna ma àgg foo xay loolu lu ñu wax nañ ñu teg sa baat waaye def na ko wax nañ ko kenn mënu ci dara kenn mënu ci ku bëgg a mel ni Sidi ku mel ne ku a mel ni Sidi mel ne dafa ni sëñ Sidi ñang def ne moom moo ko wax ne moom day ne ne yaa ak moom yéen a bokk nag sëñ Modou Fadiama waaye waaye nag dafa am leneen loo xam ni dafa am leneen loo xam ni yàlla moo ko def suñu diggante nee nag yàlla moo ko def nag suñu diggante déglu bokkul ak mbokk gi nee nag loo xam ne bokk gi mooy ak muy ak cofeel bëgg ma lool nee nag sëriñ bi nga bëgg sëñ Sidi mi lool. nee moom mu bëgg la lool. ca doon ndaw. ca ba ñu doon ndaw. ba toll fii mu toll. mosoo ñu digal leen. nee mosoo leen digal leen. lu liggéey leen. lu may liggéey leen. jaamu ji leen yàlla. jaamu ji yàlla. kon loo xam te ni. nee kon lépp loo xam te ni. am nañ ko tey. ko tey. ci yow ko royee. nee ci yow mii lañ ko royee. nga doon kilifa goo ni. nga doon xam ni. mbubb mii nga sol ni mu mel. noonu la sa xol bii mel yow sëñ Cheikh. ne képp ku la xam. war na laa seeree loolu. mu ne moom nag. mu ne wut wax ju bari. waaye dina jéem di jëf. waaye dina jéem di jëf. jëf ji nag mooy. ne jëf ji nag mooy. ne moom day ab taalibe la rek la doon. ba faaw ba faaw. loolu ñu digal dañu ko def. ne loolu ñu digal daañu ko def. te ñaanuñu yàlla. ne te ñaanuñu yàlla. nga gis ci ñoom nag looy tere. te loo xam ne def nañ ko ci yow. ne te lépp loo xam ne def nañ ko ci yow. fàtte nañ ko fàtte nañ ko. bëgg a jëmaat ca kanam. ne bëgg a jëmaat ca kanam rek. ca sa yitte. ne sa yitte. xam naa doo sas kenn. xam naa doo sas kenn. doo laaj kenn doo kenn. waaye daal ñun sa yitte. waaye nag ne sa yitte. ci la ñuy xëy. ne ci la ñuy xëy. ci la ñuy gont ci ñuy gont. sa ndigal it sa it. ci la ñuy xëy ci la ñuy xëy. ci la ñuy gont nëbbuwuñ ci nëbbuwuñ ci. nee li Mame Mbaye wax léegi. nee li Mame wax léegi. làquwuñ ci làquwuñ ci. Euh, li ñu am ndax lii ñu am. ginnaaw Serigne Touba ginnaaw Serigne Touba. sëñ Modou Fadiama sëñ Modou Fadiama la. te yaay sëñ Modou Fadiama. kon nag kon nag. takk nañ suñu digg. takk nañ suñu digg. topp sa ginnaaw topp sa ginnaaw. loolu digal ñu def loolu digal ñu def. loolu tere ñu ba ko. jumaay ji jumaay ji. comme ni ko sëñ Mame Mbaye waxee. comme ni ko sëñ Mame Mbaye waxee. yegg na ci jàmm. yegg na jàmm. liggéey bii nga sumbaat. liggéey nga sumbaat. muy barabu sëñ Modou Fadiama. muy barabu sëñ Modou bi. xawma kan. xawma kan. waaye man de. waaye moom de. kenn du ma ci man. nee kenn ko ci man de. barke sëñ Touba. tool ya it. tool ya naa ko ba yegg. nee waajal na ko ba yóbbe. bu dugg ji ñoroon suba. nee bu dugg ji ñoroon suba. ñu góob ko suba. wala ñu dig ko. nee yàlla na fi yàlla yàggal. sëñ Mame Mbaye. nee sama xol sedd na ci yow. nee mi ngi koy sant. di la gërëm. di la ñaanal. ku ñàkk ñaan nga ne jërëjëf ne fu nu dem fu bu alaaji Maam Mbay Ñaŋ waxee ba noppi moom duutu wax ne day daal di ñaan rek ne kii nag moom faaw mu wax ci ñaari kaddu ne dafa dégg ngeen di ko ñaanal aw fan ñaan baax na lool yàlla ko santaane ne di ko ñaanal wërsëg ne aw fan bu ca wërsëg andu du am solo ñu ne yow nu yaa moom ñu ne yoo yaar ne moo la ko garanteel ne fi mu ko dégg nag fu wér la ci wax yàlla la ko teg dafa wax ni ne képp ku am njëriñ ci kaw ci kaw ci ñi di nga am yàgg ci kaw suuf ne mu firi leen ko prix mu gàtt mango gu seq gu naat gu meññ nga toog ci kër gi di wacc ci doom yi di jëriñoo ndax law be dina ko gor nee ni ko am njëriñ day yàgg fi mu jëm nee loolu ko garanté nag nee wërsëg bi nee waxut nag ay waxam wax yàlla leen wax. nee na képp koo xam ne yaa joxe. képp koo xam ne yaa ngi joxe. yàlla moo lay remplacer la nga doon joxe. nee yàlla moo lay remplacer nag la nga doon joxe. nee te yàlla moom bi remplacer dafa yëpp dafay gën. nee te yooyu yaar yàlla bindal na la ko. di dimbale nit ñi. loolu yàlla defal na la ko. nee doo doon rakkam. nee nu dikk nag di la wax lu dëgg nee mosunoo tegoo loxo te bawut sama loxo dara defaloo ko nag sa bopp yi bi nga ko nee lii ñu lay waxal lépp waaye dañ la ko waxal waaye koy waxal nee payu yàlla rek lañ am ndax nangu ko ñu nangu waxu dëgg nee nag waaye nag yow la ko yàlla fay jërëjëf tàllal leen ñaan yàlla fi yàgg yàlla fi yàgg amin amin amin amin amin amin jërëjëf sëñ Sidi Ndiaye